débuter avec ce qui s'est passé avec euh, Sonko à Joal mm-hmm. def nañu benn nemmeeku tour en tant que opposant euh, mu def ko mais gis nañu ñu dogale ko ba gaze fi cortège beeg entre autres mu indi fi problème boo xamante ni vraiment mm-hmm. tiitoon nañu euh, ci ci ci fu muy mujjee euh, naka nga jàngatee mbir mi bon man j'ai l'impression que nguur gi ñoom ñooy les meilleurs dafa mel ne ñoom Ousmane Ousmane Sonko la ñuy liggéeyal <laughs> non mais c'est c'est c'est extraordinaire c'est-à-dire que Ousmane Sonko lu mu def. Mhm. lu mu mënti def. Mhm. lu ndaw ak lu rëy lu mu mënti def. ils vont trouver un moyen ngandal ko mi ngi def tournée mi. Mhm. c'est pas la première fois muy def nemmeeku tour. c'est pas le seul bu mës a def nemmeeku tour. je me rappelle que euh, Macky Sall defoon na ay genre tournée yu mel noonu. en de de 2009 à 2011. à 2011 mi ngi doon def le tour du Sénégal à deux reprises est-ce que Wade da de téye est-ce que Wade da kaa tëj. waaw ah, gis nañ ko benn vidéo de muy wax que ni daa yeggoon benn localité comme Ousmane Sonko. Mm-hmm. Euh, ñu ko doon saboté. ñu ko doon saboté Ousmane Sonko lu mu def gars yi dañ koy may buzz dañ koy may visibilité et justement nemmeeku tuur bi mënoon na def nemmeeku tuuram kenn du sax am du am tollé bi mu waroon am. Mm-hmm. parce que il va ñi ko war a suivre ñi ko suivre ñoom ñoo koy ñoom ñoo xam ne def na tout mais le fait d'en parler mm-hmm. keroog avant de venir maa ngi doon zappé di seetaan euh, euh, France 24 France 24 il parle de de de cet incident et l'incident bu ñu waxee ci incident bi boum tout le monde va commencer à le mm-hmm. suivre mm-hmm. et donc ceux du pouvoir moi je me dis yenn saa yi soit dañu dañoo cuune soit dañuy liggéey Ousmane Sonko <laughs> l'un des deux parce que c'est c'est c'est inimaginable. est-ce que tey du du du du l'affaire euh, quatorze quatorze quatorze morts yi fi jotoon am ci événement mars yi avec moom moo waral tey euh, ba benn bët bi ñu koy xoolee ba tey Ousmane Sonko. man daal affaire u quatorze morts yi. Mhm. jusqu'à preuve du contraire. fii mhm. léegi euh, Sénégal État Sénégal. Mhm. deful enquête approfondie pour ñu xam lu xew. c'est sa dafay mel ne looy lekk taw jàllagul. Mm-hmm. et ça fait un blocage aussi. Mm-hmm. am na benn mer bu askan bi dencal nguur gi. Mm-hmm. loolu c'est nguur gi laa mën a waxal parce que seen force de de de sécurité ñoom ñoo ñoom ñoo yore woon gànnaay yi officiellement ñoom lañu gis ñu yore gànnaay suñu deful enquête pour xam ñan ñoo rey personne ñii nii. loolu day gën a indi benn haine si diggante ñoom ak askan bi loolu moom mooy première première chose deuxième chose bi. effectivement bu fekkente ne dañu ne ok Ousmane Sonko day drainer du monde. Mhm. donc dafa soxla sécurité. mais ñi di dóor lacrymogène pour tas kii bi. nañu ko protéger. Mm. nañu protéger cortège bi c'est pour mu bañ a am débordement. Mm. parce que boo dóoree lacrymogène nit ñi éparpillé wu mun nañu fi gaañu mun nañu daanu n'importe quoi mun na. d'ailleurs am nañu ñoo xam ne nañu fa gaañu ah, gaañu. on a vu les images comme ça et mm-hmm. au contraire ça va le faire da koy gën may légitimité. Mm-hmm. day tax sax ba léegi les gens vont comme loolu la ñun ñoo koy defendre nag léegi. Mm-hmm. ñun ñoo ngi xaar ba gendarme ñëw et loolu mun na créer justement benn antécédent. Mm-hmm. je pense qu'il faut que mu lu dialogue mm-hmm. diggante autorité mm-hmm. ñi yore gànnaay yeeg yooyu nga xamante ne seen liggéey moom mooy sàmm kaaraange dëkk bi il faut moo am waxtaan seen diggante ñoom ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy comme par exemple ay leader yenn yenn politique li fi daloon li li arrivé la ay euh, Barthélemy Diaz bi mu waroon dem muy ji y a plein de choses yoo xamante ne parfois t'as l'impression que gars yi doole et tu serve public bi peuple bi peuple dafa dafa dafa bañ ku ñuy ku ñuy néewul doole chaque fois l'histoire a prouvé chaque fois boo newalee nit ki doole après peuple moom lay faral. c'était comme vous en 2011. soutenir bi ngeen soutenir. Macky Sall exactement parce que mhm. dañu gisoon ni effectivement dañ ko néewal doole parce que dañ ko dàq assemblée nationale euh, mu muy wër dañ ko dàq assemblée avant ñu koy dàq assemblée nationale dañ ko dàq premier ministre. mu mhm. ñëw assemblée nationale waroon toog cinq ans ñu voté loi wàññi mandat de bi def ko un an. je me souviens comme d'hier mhm. de Doudou Wade bi muy jubilé jour boobu tellement ils étaient contents parce que fexe nañu ba dindi mhm. wàññi doole Macky après Macky Sall jóge foofu dem bi Macky Sall demee tout le a vu moo tax bu ñu doon def suñu marché yi tout ça bi muy gàddu mer gàddu bi di mhm. ñëw ne day fanaani buntu pale xawma kii tout ça c'est des images yoo xamante ne j'ai l'impression que nguur gi daf koy fàtteloo loolu yëpp su fàttali ko loolu li ko ñi ko jàppale woon ba mu toog foofu. Mhm. ñoom ñoo nar a jàppale justement benn Ousmane Sonko wala keneen mu toog place am. Mhm. parce que li xam li mu li ñu ko doon def nit ñi di si xeex moom la ñuy def opposition bi. est-ce que tey euh, jàppoon ni quand même mbir mi euh, benn sorte piège lañ ko mën a waxee ni parce que Ousmane Sonko veyu euh, balaa muy def nemmeeku tuuram bi waxoon na maa ngi dem mais gare à l'État on peut dire bu nar a ñëw saboter sama sama sama sama nemmeeku non mais il savait xamoon na ne noonu lay demee affaire yi nu mu demee noonu. bon est-ce que daf ko def pour provoquer leen. pour mm. xam tout en sachant que ñëw. Mm-hmm. wala est-ce que dafa tomber je ne sais mais j'imagine que ni comme xam na c'est pas la première fois am genre antécédent yu mel ni c'est sûr et certain que ni bi wax loolu. Mhm. man pense que na ne dina am dara. Mhm. mais mooy li ma lay expliquer démb def nañ ko tey defaat na je crois hier. demaat mi ngi continuer depuis. est que amaat na incident dem na Malicounda. xam nga amatul incident. waaw mais justement du amati incident. parce que premier incident boobu moom moo bloqué moom moo tax ba affaire bi je affaire affaire yi mhm. affaire yi taxaw. je me souviens que ci élection législative yi. Mhm. amoon na benn tere woon nañu rassemblement. je sais bu ñu waree def benn marche. voilà ba ñu jàppoon euh, Abdourahmane Diouf. Mhm. am na fu mu doon dem ci région. oui oui gendarmerie. Mhm. c'est que moi je ne comprends pas mënu ma comprendre en fait mënu yow. Euh, rôle bi ñuy jouer cest dire que dañuy tere rassemblement dañuy tere euh, désordre. e c' est eux qui apportent le désordre malheureusement. parce que am na yenn comportement boo ko amee ngay dóor ay nit ay lacrymogène tout ça mais nit ñi dañuy jël seen xeer tamit sànni la ko. dégg nañu ne bu defee saytu euh, ce sont les forces de l'ordre ñuy indi euh, ordre public bi ñuy wax que ni dañ koy dañ koy dañ koy. te li graaw mooy que ni mosoo dégg benn yoon ñu ne la nguur gi def nañu rassemblement mu indi désordre wala ñu dóor leen lacrymogène. Mm. c'est ça problème pourquoi nguur gi ñoom bu ñu def seen rassemblement il s'arrange à que lépp carré lépp lépp lépp jaar yoon hmm. mais bu opposition buggee kii rassemblement ñu ne non da di indi ordre désordre à euh, ordre kii désordre public trouble à l'ordre public hmm. donc askan bi dañuy toog di seetaan gàddu seen carte di xaar. Mhm. alors tey jii est que jàppoo ni conséquences yi tam mënul gën a gën gën a yaatu tey parce que bu ñu xoolee ci texte yi nga xamante ni moom moo régir euh, dox ak dikk nit ñi ci constitution bi euh, wax nañu euh, vraiment loi bi dina la punir su fekkee danga koy tere nit ki jàppoo ni kon léeg-léeg loi yi ñu ko tënk ci boppam dañ koy jalgati. loi ni ñuy interpréter loi ak ni ñu koy bindee man yenn saa daf may xaw jaaxal. Mm. parce que da ngay gis par exemple ñu ne la euh, nee nañu euh, la la constitution nee na. Mm-hmm. dafa encadrer le droit à la marche. Mm-hmm. mais ñoom boo leen di déglu dañ la naan non encadrement. marche dafa war am encadrement c'est-à-dire que après ku nekk ak ni nga koy interpréter li xaw a doy waar encore une fois mooy boo nekkee ci opposition bi. Mm-hmm. da ngay xeex pour àq ak yelleefu sénégalais yi bu la yàlla may nga toog ci nguur gi. Mm-hmm. li nga xamante ne yaa ngi ko doon xeex loolu ngay gën a dooleel. Mm-hmm. article quatre-vingt. Mm-hmm. c'est un boo xamante ne c'est un article bu doy waar parce que li ñu si tënk moo bëri tey jii nii am nañu ñu ñu jàpp am na Ousmane. Ousmane Diagne Ousmane Diagne bu mafia kàcci kàcci. Ah amoon na beneen jeune tamit. Papito Kara qu'est-ce qu'ils ont lu tax ñu nekk ci kaso bi. waaw parce que dañuy jël ay journaux wax ci wax. yoo xam kenn kii ay émoji reetaan. na def ci ñu tëj ko. Mm. keneen kii faisait de de la parodie. Mm. Kouthia li muy def euh, euh, TFM émission Kouthia Show lan la du parodie. il fait la parodie. Mm-hmm. quelqu'un qui prend des journaux sur les réseaux sociaux muy def ay parodie. Mm. ñu téye ko yóbbu ko. canal en canard enchaîné depuis ñaata at li ñu doon def c'était quoi de l'information mais vraiment sabotage mais loolu dafa bokk ci liy dooleel démocratie donc on se on se pose des questions et tu sais li grave mooy que ni oui tu te dis mais comment ça se yéen ñi war a xeex pour démocratie bi gën a am doole. ñoom ñooy ñoom ñooy rey loolu c'est-à-dire que tey jii nii man mii nii nii mun naa génn gendarmerie xaar ma ci suuf soi-disant parce que war na am na benn wax bu ma wax. et li ma trouvé un peu dommage c'est que justement les euh, ñu nekk ci opposition bi parfois seen combat yëpp. Mm-hmm. c'est très politique. yenn saa du ma leen dégg ci yenn sujets yi nga xamante ne c'est des sujets vraiment de société. mais sujet politique rek lañuy xeex lépp lu jëm ci politique rek la ñuy wax. Mm-hmm. am na ñoo xamante ne ñoom ñoo war a jar ñu wàcc marche ñoom ñoo war a jar ñu wàcc xeex mais pas pour seen intérêt ñoom donc mais la plupart du temps ku nekk say intérêt. Mm-hmm. suñu laalee sa nga jóg wax suñu laalul sa leader ñi si des nañ gérer seen bopp. ku nekk teg sa sa sa sa côté taw. mais est-ce que est-ce que du comportement tamit euh, des fois euh, nguur gi fi nekk moom moo waral ñuy donc bu fekkee léeg bu ngeen bu dee da ngeen di organiser marché donte léeg sax dinañ ko yoonal mais léeg-léeg ñu gàntalal leen ko ba ñenn ñi ñu jàpp leen euh, yóbbu Guy Marius Sagna plusieurs reprises def na fi marche contre la vie chère courant bu cher entre autres mais gis nañ ñu ñuy ni muy mujjee est-ce que du des fois loolu moo leen di téye bon mooy li may expliqué léegi c'est-à-dire que tey jii nii benn Guy Marius Sagna wala bon yenn marche yu ñu doon organisé pour la vie chère mm-hmm. pour le bien-être des Sénégalais marche yooyu ñu doon organisé doo fa gis ay mille personne deux mille personne <laughs> waaw dañ leen di wàññi de doo fa gis ñu bëri de <laughs> mais bu ñu waxee ci leaderu diw dam Sénégal yëpp gars yi bu wàcc ne dañuy wàcc mobiliser et donc tamit c' est mooy li ma la wax léegi rek sa est à dire que après léegi ku nekk yow sa intérêt bopp kese moo la tax a mm-hmm. yenn marches yi ñuy def. ce mm-hmm. n' est pas yoo xamante ne day intéressé Sénégalais yi parce que bu doon da doon intéressé Sénégalais yi dañ ko war a accès cent pour cent sur Sénégalais yi kaay leen ñu marche pour lii ak lii ak lii parce que lii suñu dunduwaay la. Mm-hmm. mais doo leen dégg ñu def yenn intervention yi malheureusement. mais bu fekkente ni lu ay intérêt crypto personnel si la ñuy gën a wax. Hmm. Euh, nguur gi tamit. Hmm. nguur gi tamit encore une fois l'abus de la force dañuy utiliser ñuy yenn saa dañuy jaayee doole euh, du lu bees. amul benn nguur boo xamante ne moom ak opposition bi dañoo déggoo. Hmm. man je me souviens très très bien comme si doon démb bi ñu doon dem l'élection li élection présidentielle 2012. Hmm. ñu ne non kenn warul def ay marche kenn warul def euh, manifestation euh, place euh, place l'indépendance hmm. bi ñuy dóor Ibrahima Fall lacrymogène bi loolu comme dem hmm. bi ñuy dóor ñoom Macky Sall ñëpp dañu leen doon dóor ay lacrymogène léegi yow ki ki nga doon dóor lacrymogène démb tey moom mooy sa patron léegi bu nekkee sa patron tu penses que danaan la bàyyi li nga doon def danaan la defaatal lu gën raw loolu même chose même chose opposition opposant boo jàpp dóor ko parce que nguur gi moom mooy benn genre chaise chaise chaise euh, musicale da ngay gis ñii dañuy far tey. Mm-hmm. suba ñu xuloo bu ñu xuloo xawente su sutura la preuve. Mm-hmm. sunu la première euh, Mimi Touré. Mm-hmm. problème boobu la la la la la ñu Mimi Touré moo doon défendre Macky Sall bec et ongle fu mu mënti dem défendre ko. ñoo am problème rek ñu commencé xaaw yi ay sutura non non bëgguñu troisième mandat te bi muy def conférence de presse yi chaque fois bu waa yeew yi dafay conférence de presse muy mu mu dans l'heure qui suit mu def tamit conférence de presse ci ci ci euh, euh, mm-hmm. permanence su APR mm-hmm. c'était bien c'est-à-dire que da doon mm-hmm. indi la réplique di leen xas mais bu problème amee seen diggante rek mu changé discours mais mais s'agissant de Ousmane Sonko euh, dañuy euh, faral di nemmeeku benn kàddu jëpp ñi euh, gis ni wala di wax que ni il est dans la manipulation wala victimisation tey bu mm-hmm. buy génn c'est comme si tey si si nemmeeku tour bi da doon annoncé mm-hmm. que ni bu demee dinañ ko fa def dara kon nit ñi nañ ko xaar mm-hmm. est-ce que est-ce que est-ce que vision bu ni mel tamit ngay gis que ni vraiment Ousmane Sonko fu mu toll moom ma ngay victimiser lii lañ ma def lee lañ ma def dañ may préparer dañ may tegal ay ay ay pièges man je pense que comprendre na nan lay utiliser image. Mm. dama lay fàttali benn affaire bu ndaw euh, mooy bi mu waroon dem julli ji. ñu bloqué ko. l'image man li ma si li ma si xool. li ma si mm. retenir benn image rek laa si retenir Ousmane Sonko sol lu weex tàll. Mm. jàkkaarloog policier bi policier bi masqué kanam bi image boobu kese pour man loolu la si doon mooy on a pris photo. xoolal lui il est en blanc parce que blanc ça représente la paix et cetera. Mm-hmm. xoolal policier bi sa représente la violence. Mm-hmm. et est comme ça que ça fonctionne man ça man à mon avis li muy def nii c' est la seule manière pour lui mu génn ci. communication en quelque sorte il faut mu communiquer. Mm-hmm. c' est la seule manière su ko defulee. mais dañ koy jël patam patapee patam patamee ko. parce que le fait justement que chaque fois qu'il y a des mu toog génne def communication wax. am kii ramete les troupes xam nga gars yi gars yi yëngatu. Hmm. automatiquement nguur gi day dellu ginnaaw et nguur gi dafay dellu ginnaaw. il est le seul qui a réussi à plusieurs reprises wax yenn wax yi nguur gi ragal a continuer dellu ginnaaw. est-ce que du du du tey ba ba euh, amul amul jëlul un peu seen fit ci ci ci politiquement bu ñuy xool si si. l'ampleur waaw oui man si li ma constaté. Hmm. chaque fois bu defee benn sorti day am day am day am réplique day am ay ay conséquences. Hmm. et comme on dit cest dire que benn Ousmane sonk nguur gi moo ko fabriqué du toutes pièces moo ko may doole moo ko may doole ba finalement nit ñi dañu commencé di ko gisee effectivement comme si nguur gi daf ko singili mais regarde ay cas yu bëri ba la dernière fois bi ñuy dem Ziguinchor ils ont mm-hmm. euh, si cortège am bi ñu attaqué après sa femme sa mère je crois bi ñu mm-hmm. këram si kiiw liste et tout ça ce des choses yoo xamante ne les gens du pouvoir xaw ma ndax ñi koy def Macky Sall moo leen yónni je ça m'étonnerait fort mais je pense que ñu bëri dañ koy def pour neexal Macky Sall et le résultat. maanaam Macky Sall yëgul lii xew. je ne crois pas. je pense pas que Macky Sall. pourtant li xew nii hmm. tey Macky Sall la ci la ci la ci Ousmane Sonko njëkkër njëkkër njëkkër tudd moo ko manigancé ak général Fall je pense oui général Moussa Fall c'est normal c'est comme ça loolu mooy maanaam communication politique mm-hmm. communication politique lay def man noonu laa ko jàngatee donc tout le tout le tout le process mm-hmm. et la preuve ça marche <laughs> parce que da kay def automatiquement ñëpp a koy relayer ñëpp a koy wax mais léegi nguur gi lan mooy seen réplique Mm-hmm. lan mooy seen réplique qu'est-ce qu'ils doivent faire qu'est-ce qu'ils doivent dire pour démontrer que c'est pas vrai ils ne peuvent rien dire. mais est que tamit nguur gi tam mënuñu koo nangul ne dañoo war di garantir surtout ñu yor sécurité nit ñi ak biens yi jaarale ko ci ñi nga xamante ni ñooy suñu force de l'ordre bu ñu leen waxee tamit ñun ñun ñu nangu dem toog. nguur gi ñoom ñooy dem di jël ay nervi mm. di leen utiliser en plus de gendarmes en plus de policiers en plus ñoom ñooy utiliser ces ces gens-là pour pour seen seen caravanes yi. gis nañ fi li fi xewoon ci ci législative yi rek les les les caravanes qui se font mm-hmm. attaquer mm-hmm. et franchement c'est une image boo xamante ne chaque année ñu wax chaque à la veille de chaque campagne dañ siy wax mais ça ne change pas parce que effectivement ñoom kii opposition bi boo leen dégloo yenn saa dañuy remercier les forces de de force de de sécurité mm-hmm, mais ñoom du ñu wax ak force de sécurité yi parce que ñoom dañ leen yónni kese mais ki leen yónni la ñuy waxal dañ leen yónni on lui dit ok telle personne ki leen yónni ñun kooku la ñuy waxal. Hmm. parce que effectivement force de sécurité mënoo leen blâmer ci dara parce que ñoom seen métier seen liggéey rek. jouer seen rôle dañ leen di woo ne dem leen def li mais comme je dis am na ñoo xamante yenn action yi quand tu les regardes tu dis mais lii nii <laughs> vous créez du buzz pour une quelques personne boo xamante ne peut-être que ne bu ñu neewoon Thiel. Hmm. coow li du toll foofu. donc il fait de la communication et tout à fait à avantage. Hmm. c'est la même chose bi Mimi Touré di def. c'est la même chose que Barthélémy Diaz fait c'est la même chose que Khalifa Sall ñoom ñëpp ils font de la communication c'est-à-dire que nañu ko nangu nañu nangu ne sa fait partie du jeu. Hmm. c'est comme tey jii nii benn terrain de football ñuy football. kenn nga xaw ko laal tuuti rek mu plongé. Mm. xam mu plongé at bi bu gisul day foog da nga ko da nga ko da <laughs> c'est la même chose. <laughs> te te te au que Ousmane Sonko mënul dem mënul dikk ci bitim réew parce que y toujours euh, le dossier d'Adji Sarr ak euh, tey euh, liñ ko teree génn territoire national bi mm. ba tey gis nañu franchement franchement demul. Mm. mais mais jamono ji mbir bi ni mu mel ni épée de Damoclès ci kawam lu ñu wax ñu ne ko. faut nga dem setal sa bopp mm-hmm. laataa ngaa lijjanti leneen. Mm-hmm. Euh, loolu tamit euh, nekk est-ce que du nekk un peu blocage. man euh, man li ma comprendre mooy lan moo tere procès bi am Ousmane Sonko nee dafa bëgg procès. waaw waa Adji Sarr nee bëgg procès. ils ont entendu xaw ma kii na na si ndaw si Ndiaye. waaw Ndeye Khady Ndiaye dégg nañ ko sur le fond du dossier. Mm-hmm. et ce qui empêche les choses de se passer est-ce que gars yi dañuy xaar ba ñu ne deux mille vingt quatre c'est dans quelques ñu ñu woo ko kenn hmm. xamul. Ah, parce que justement encore une fois suñu justice bi dafa dafa dafa dafa même bu dee dañ koy bañ. que oui c'est une justice à deux vitesses c'est une hmm. justice qui favorise les uns et qui sur les autres mais loolu la ñu wone depuis des années li ñuy wone depuis des années mooy maanaam hmm. yenn procès yi day expéditif yenn procès yi dañu jël seen temps procès wu Khalifa Sall bi ñu koy bi ñu koy tëj mais en deux temps trois mouvements tout a été fait. c'était beaucoup plus rapide. un procès boo xamante ne li waroon def ay années ça a été ça été dañuy jël suñu temps seen mm. le procès de Barthélemy Diaz ça fait quoi bi Macky Sall toogee dix ans procès bi ñu ngi koy lam-lamee et cetera donc justice à deux vitesses boobu moom moo tax. Mm. ba les gens ont peur les gens se disent c'est une justice qui est manipulée c'est une justice qui suit un calendrier politique et loolu pour nous prouver le mais nañ ko def une bonne fois sénégalais yi xam lan la c'est quoi le problème. tamit du du problème bi du lee xewoon parce que day mel ni dañuy ragal li xewoon xewaat. mais xanaa nguur xanaa état xanaa état amul doole xanaa état amul ay renseignements xanaa état mënul gérer je pense que Macky Sall nee na lii xewoon du xewati il l'a dit une fois. mais oh, ñu bettoon. quatre morts am na de. ci bu yàggul dara ginnaaw bu mu waxee loolu. mais li xewoon ba amoon treize morts yi ba dëkk bi yëpp doon tàkk. Mm-hmm. ba fépp ñu doon taal ay Auchan di taal ay station et tout nee na loolu du xewati et je pense que procès bi bu ñu ko naree def ils vont suuf s'arranger à ce que loolu bañati am. Mm-hmm. mais man li ma comprendrewul encore une fois sonk nee na. Mm-hmm. pare na pour dem. moom neewoon na moom buñ ko bu buñ ko delloon na passeport diplomatique il se donne. Hmm. la moom neewoon na lu 4 avril sax laa déggoon. wala 6 avril joxe nañ fi joxe nañ fi ay dates. on nous parlait de de la convocation imminente de de de Sonko. ci weer bi oui j'ai vu aussi dans la presse ba avocat wu Sonko yi. démentir ko amuñu date mais on ne comprend pas c'est-à-dire que. c'est quoi le problème ku nekk nee na pare mais euh, benn adversaire la quand ndax tey jàpp nga. ça veut ah? pour delloo pour justice la. on quel quel que ce soit justice xoolul ndax politicien la preuve euh, comment il s'appelle mm-hmm. euh, beneen waa ji ñu accusé wu. Ndour si tort. tort euh, si tort si tort n'est-ce pas que après mm. ça a été jàpp nañ ko. et mm-hmm. cetera moom ba tey mi ngi si loxo yi. Euh, problème mu kële Californie. waaw aussi mu ngi si justice. il y a eu quelque ba condamné nañ ko. d' accord léegi pourquoi est ce que loolu bu ñu ko defee est ce que tamit c' est pas un signal pour dire que oui. suñu bëggee heure bu ñu neex la ñuy la def suñu procès. mais justice tam kenn mënu ko jàppal àpp ah. mais ko tey da nga ko war a def tey wala da ko def mais le que ñu koy ñu ñu ñu ñu koy pousse di ko poussaat te vingt deux mille vingt quatre léegi mu jot. te Ousmane mm-hmm. Sonko il s' est candidat. Mm-hmm. ñu bëri dañuy euh, ñaaw njort ci loolu ne est ce que dinañu xaar est ce que dañuy xaar ma dugg ci euh, année électoral pour mm-hmm. woo ko wala est que dañ koy def. ci coupe du monde bi. Mm. <laughs> am na ñu naan dañuy bàyyi ba. waaw parce que <laughs> loolu leneen la monde bi. Mm. ba ñëpp focus concentré wu ci ci mondial bi ñu dem ñu. Mm. convoqué ko on ne sait pas. mais toujours est-il il faut que ñu def ko au moins une bonne fois pour toutes. ku nekk mën a dem euh, vaquer à mm-hmm. tout à l'heure yaa ngi doon wax ci waxu euh, Mimi Touré euh, vraiment.